Je pense même que la décision a surpris l'État du Sénégal. Parce que nous ne sommes dans aucun contentieux qui puisse faire que le soit compétent Et la loi ne donne pas compétence à la direction générale des élections encore moins au ministre de l'Intérieur de décider, de décider et de s'arroger des pouvoirs, n'est-ce pas, qu'il n'a pas. Parce que la direction de, de, de générale des élections est délégataire et le représentant, le représentant je dis bien, du peuple, le ministère public, le ministère public de la le procureur, madame le procureur de la, de, de, de la Cour suprême, a clairement expliqué que ce que la direction des élections et le ministre de l'Intérieur ont fait relève d'une voie de fait. Qu'ils n'ont pas la compétence dévolue par la loi pour procéder comme ils l'ont fait. qu'ils ont porté gravement atteinte aux droits de Ousmane Sonko. Qu'il ne leur pas de dire si Ousmane Sonko est, doit être, comment dirais la candidature de Ousmane Sonko. Oh, Et oh, oh. Voilà, vous pas, voilà parce que pour l'instant, nous sommes candidats à la candidature. Et ces questions ne relèvent que du pouvoir du Conseil constitutionnel, que par de conséquence, puisqu'ils ont agi tel qu'ils l'ont fait. Il s'agit en réalité d'une violence d'État qui est exercée et qui n'a pas de fondement juridique assis. Et l'avocat général a demandé à ce que l'on délivre à Ousmane Sonko les fiches de parrainage. On le juge a commencé à lire sa décision. Et après un raisonnement où nous attendions Les représentants du ministère attendaient aussi qu'il lui donne raison. Parce qu'il a reconnu l'urgence en raison des délais. Il a reconnu qu'il y ait que le droit de voter et d'être élu est un droit, est une liberté fondamentale qui est garantie par la Constitution et prévue par les traités et conventions ratifiées par le Sénégal et auxquelles le Sénégal doit être soumis. Que le fait de d'avoir des fiches de parrainage participe du processus électoral et que par voie de cause participe du voie du processus électoral. Après avoir reconnu l'urgence, alors le juge, brusquement, et sans que l'on puisse comprendre comment, il a dit que la direction de surveillance des élections et le ministre de l'Intérieur avaient le droit d'empêcher qu'on remette à Ousmane Sonko le de Donc nous avons tous été assommés. Et jusqu'à présent, chacun se demande qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'en réalité, la fin était au murmure et j'étais obligé de m'approcher de lui et de tendre l'oreille. Mais quand même, j'étais obligé d'aller demander au greffier Mais enfin, qu'est-ce qu'il a murmuré Il m'a dit il a rejeté. Alors, je dis que cependant, cependant, je ne suis pas surpris. Parce que Parce que le droit n'a pas été dit. Et je ne suis pas surpris parce que depuis avec le pouvoir exécutif en place, je ne vois nulle part la séparation de l'exécutif et du pouvoir judiciaire. Ce que je vois, c'est qu'il y a une rupture des amarres, entre l'État du Sénégal et la démocratie et l'État de droit. Par de conséquence, cela serait nécessairement une Et là, c'est bien dommage. Parce que nous sommes un tournant historique où on veut le peuple sénégalais de la possibilité de choisir souverainement celui qu'il a décidé de mettre à la tête des affaires de ce pays. Et là, une poignée de personnes ne peuvent pas nous prendre à notre Et il faut que cela s'arrête. Il de voie de recours. J'ai dit dans ma plaidoirie que nous sommes dans un tournant historique où chaque homme, par la plume, par la parole et par les actes, prend ses responsabilités individuelles et engage ses responsabilités. Qu'il soit citoyen, qu'il soit député, qu'il soit juge ou Donc, moi, si je ne suis pas Ayant été là, ayant suivi et ayant pu être témoin de toutes les pratiques républicaines depuis 1963. Et la rupture que j'ai observée en me permettait en déjà de dire que l'État a rompu les amarres avec la démocratie et l'État de droit. dañoo jalgati dañoo salfaane ak ak yeneen Ousmane Sonko. et que teguñu ko fenn ndax amul kenn ci kaw yoon.